yàlla nee na li ngay def def ca la nga man illa ma ataaha sa yajalullahu baada usrin yusran boo ko mënul ren mën nga ko mën déwén soo ko amul tey mën nga ko am suba waaye defal li ngam man bul seet ku gërëm bul ragal ku la xas ni ko cheikhil qadim radiallahu anhu daan waxee daan wax ne wàkk sërul afaati ñu ne ko mbàkke ah mu ne miin xawfil fata zamman wa xubbihim tidaaxan sabata nee na bokk na ci li gën a nekk musiba ci nit gën a bon gën a nekk gaaf mooy bëgg yaa baax ak ragal yaa bon sëñ Tuubaa nee na da nga dem ba dootoo def ngir yàlla nit ñi rek ay tàngay def ku ragal nit ñi xas danga dem ba dootoo moytu ngir yàlla nit ñi rek ay tàngay moytu kooku nag man loolu mu wax ci noonu lay doxe yàlla suturaal nañu lii am na ñun ñépp a ko bokk def ndax bu ma defee yéen a def te yéen a ngi def lu ma mënul ndax mënumaa dem ca waañ wa di togg mënumaa waas jën mënuma dara su dee ñii mënuma dem di yenu ay tib di li parce que maa ngi lijjanti leneen kon ku ne mën nga lu sa morom mënul di ko def ci gàmm ñun ñëpp ku ne mën nga lu sa morom mënul eh, yàlla yonent bi nag li taxoon mu not àdduna lenn la mooy aljamaatu rahma wal furqatu azab da daan wax ni déggoo ci lu mën a doon nee na bu amee rek lu ngeen song daan ko soo xol yi uutee nag lu ngeen song du ngeen ko daan gàmmu gi nag ñu ngi sant yàlla ku ci am noo melit feeñaloo ko ñépp li ñu gis ci ñoom mooy yéene ndam guddi gi kon ne ñépp taxawaat ku ak lañu la dénk su ko defee ñu organiser noonu gannaaw yaa koy gàddu nag bu manqué nga motte <laughs> mbir noonu rek la mën a demee bu ko defee loolu daal mooy affaire yi ah man bëgguma ku ma yedd parce que ba ñuy réunion di wax matul booba ñoo laajoon ñoo noon lii doy nañu ma yëkkati liñ ne moo doy jox kon bu doyee di amatee dañ koy dolli loolu rek muy mbir mi ñu yokkaat ko bu ko defee daal loolu la ñiñ ko tuddee nag lii ma ci sëñ abdu Karim wax daf ma ni Iran xam nga lu ma neex ci gàmmu Cees gi ma ne ko déedéet mu ni ma turandoo yi man daal turandoo yi mooy sama problème ñiñ ko tuddee dafa rëy parce que foo tudd yonent bi rek tudd fa baayam tudd fa Aboubacar tudd fa Omar tudd fa Ousmane tudd fa Ali tudd fa Hamza tudd fa Jaafar tudd fa Bilal tudd fa Zeyd ibn Haarisa moom lañ ci dolli ren muy parrain bu bees ndax at mu jot dañuy yokk kenn bu góor benn bu jigéen boo demee ci jigéen ñi ña euh, Seydatuna Mariam mooy yaay yonent Yàlla Isa di ndeyu catholique yi yàlla wax ni jigéen ñi mu bind ñépp Mariama ci gën ñu teg ca Khadija faatima Fatima Halimatu Saadiya Sumayyata euh, Asmaaw ak nu mu tudd Rabiatal Adawiya dolli ci Asmaaw bintu Abi mu jeex kuñ ci tëbit amul solo ñëpp xam nañ turandoo yi muy guddi goo xam ne nag yenintu bi moo ne ca kaw uuf leen damay wax ne bépp jigéen bu ne ci àdduna bi te yàlla may la kàttan bu ne ci àdduna bi laa yàlla may la kàttan nga mën a déplacé wu turandoo yu jigéen yi war na la mën a jaral jóg nga ñëw teewal leen ndax ñii lim ku ci dundoon da nga ñëw baa nga yeble ñan ñoo fi yeble si dii fi ne say ak kan mbay sàmm yeblewul ak kan ah point comme yeblewul mais Ibrahima ñëw mënuñoo ñëw kilifa yi mais yeble nañu nii leen seeni kilifa yeble yebalee tey ñiñ tuddee bés bi buñ doon dundu noonu la ñuy ñëwee teew baa ñu yebal ñu leen teewal xam ngeen li may wax léegi léeg ñu jël benn daayira tuddee ko conférence daayira ba dem ànd ak président ba ba présidente ba wala mënta dem mu sàkk délégation bu mag jël lañu am yónnee ko kon yéen ñi may seetaan ci àdduna bi jigéen ju ne war ngaa mën a ñëw teewal jigéen ñi ñu ko tuddee teewal leen nekk seen délégation parce que dunduñu bu dee góor gu may seetaan ci àdduna bi war nga mën a ñëw teewal góor ñiiñu ko tuddee rawatina yonent yàlla muhammad ak ñii ñu ko tuddee kër yonent bi ñiñ ci reyul bëriwul kenn lañ ci reyul mooy Ababacar Omar dañ koo rey ci min baru jàkka ji lañ ko rey fa mu doon jiite Seydina Ousmane da doon jàngal Qur'an ñu ngi ko reyee ci sóoratu Nuur lañ ko fekk mu toll ñu rey ko Seydina Ali alxames ci guddi ci fajar muy dem jàkka ja ci lañ ko kar dóor ko jaasi ca bopp ba rey ko ñett ñi ñëpp dañu leen rey kon war nga xam ni du mbir mu neex bu dee Hamza dañ ko rey xar ko Hind moo ko reylu parce que moo reyoon baayam ci xeex ba mu vancé wu nag jël jaamam bu ñuy wax Waxsiya ne ko soo bëggee ma goreel la reyal ma ki rey sama baay muy Hamza ni mbëri seen làmb yi def di dem Amérique di entraîné ji Waxsiya dem entraîné ji jàng nu ñuy jame jàng nu ñuy diiree ba mokkal ko di xaar xare bi na ba ñu demee mu rey Hamza hind jël jaas di jigéen la mooy jabaru abu sufiyaan xar dënn ba ne ko ŋalañ tibb res wa seex ko wax si tibb res wa seex ko yéy ko ba mokk mu wann deret ja yàbb yàpp yi kere am sa noonu la def am sa indi ne ko goreel naa la fayal nga ma mu libéré ko wax si dem ba bëgg a tuub mu jafe yenent bi ne ko rey nga ki gën ci nit ñi waaye du yomb ci yow nag ñuy dem ci xilaafa mu yenent bi ci toogaayu Muhammad mënul dugg ci lislaam ba ci toogaayu Ababakar bi mu demee ba ñu am xare mu dem rey Musaylimatul Kadaab Musaylima yonent bi daf ko yónni leetar oo ko ci lislaam mu wëlbati leetar ba ne ko ni la yàlla yónnee la ma yàlla yónni jox ko ay ndaw ñu indi leetar bi yonent bi ne ko bu ñu interdit bu ñu terewuloon bu ñu terewuloon ay ndaw yu ñu rey ka leen du xam la xew ma rey leen ma reylu leen daal di bind ko Musaylima mm-hmm. ne ko min muhammadin rasulillah illa musaylimatil kazaab yeneen tubee ko tuddee kazaab fenkat moo tax tur barkeel Musayli moomu wax si yaa ko rey bam ko reyee mu ñëw ne ëskay rey naa ki gën ci nit ñi rey ki gën a bon ci nit ñi nu ma yonent bi def ëllëg xanaa dina bég fa mu tëdd ci bàmmeelam Hamza moom lañ naan wax asadul islaam gaynde lislaam lislaam yàgg naa bëri jàmbaar moo tax ñi yambar yi may dégg am na ay oustaz yoo xam ne ay défaillant leen ak ay élimaan vrai défaillant lañu parce que ku mën a combattre alquran ànd ak ay noon yi daara nga sañ taxaw ne président ci boppam bu interdiroon njàng alquran ci réew mi dañ koy arrêté xam nga ne dangay ngay fen day fen sañu ko alxuraan kenn ñi moo ko interdire gon dëkk bi yëpp doom lay doon loolu waxu waxu enveloppe la rek waxu enveloppe xam nga wax dafa am enveloppe parce que bëgg nga luñ la jox réew mi dafa bëri ñu bëgg a tedd ti nanguwu ñoo liggéey soo bëggee tedd ti nanguwoo liggéey ci tappale ngay dundu